dénkante ak fàttalante kan bokki talibé yi fu ñu dajee am ndigal yooyu it da nga leen ko jox di leen ca bàyyi loo xel ngir loolee suñ ko toppee muy loo xamante ni mën nay doon lu ñuy fóot ci waxtu wu ne suñu diggante ak suñu borom di du fóotal suñuy xel nu xam ni ni xalaate xam yan xalaat moo am njariñ xàmmee it xalaat yi amul njariñ xam xalaat yi am njariñ it fam nu jëmee ndax xalaat bu yàggee ci nit nit ki li muy xalaat bu dee lu am njariñ la ak amul njariñ yépp su yàggee moom faaw ma dem ci xol li ci ëpp su fekkente ni yar na nag suñuy xalaat ba muy xalaat lu baax muy aw yiw xalaat giñ koy xalaat bu yàggee dañuy bëgg loola bëgg gi ñuy bëgg loola nag ah dañuy mat jëmale ñu ci ñu jëf ko jëf ja nag day wëlbatiku nekk loo xamante ni ñuy jeexital ci roox lay doon muy lu baax loolu yi nga xamante ni ñoo ngi koy xalaat kon dafay mel ni fiñ gënoon a aw ak nit ñi mooy foofu ba tey ñoo nga fa ngir nit ki di wattandiku xalaatu safaan ndax xalaatu safaan it boo ci saxee it bu yàggee ala kulli xaalin danga ko bëgg su ko nit ki bëggee mën naa àgg ci jub jëm di ko jëfe ci su boobaay loolu dafay jeexital ci ruux day nekk kiiraay loo xam day nekk suñu diggante ak sunu borom